Basuma, Basuma Mbare, il fait nuit. Basuma, Basuma Mbare, il fait nuit. C'est pas chaque jour dimanche. C'est pas chaque jour lundi, c'est pas chaque jour mardi. Kachov, toujours en garde à vue. <coughs> Toujours en garde à vue, sans logique. Ici, c'est pas le Sénégal. J'entends certains membres de l'APR dire qu'on va renvoyer KSF au Sénégal eh quelque chose est clair et net Macky Sall sa papa sa yaay seen raq seen raqaati raq Sonko c'est le seul gagnant devant le régime non devant la folie de Marème Faye ndax lii ñuy def yëpp ñàkk état bu ñu def casser les institutions lépp c'est la folie de Marème Faye Sall lépp c'est la folie de Marème Faye Sall qui va faire sortir Macky Sall ndeysaan par c'est la fin de Macky Sall c'est la fin du régime de Macky ndax lan la folie ba France fii Doudou Ka mooy porte plainte ki mooy porte plainte ngeen foog ni kaay sof da ngeen ko mun rapatrier seeni papa ak seen yaay mënuñu ko rapatrier seeni maam seeni raqaati maam suñ seen umpaañi maam mënuñu rapatrier kaay sof saa moom sénégalais na seen xel dal bu kenn def loolu seen bopp on passe mais kees li mu nekk nii eh booy gère xam ngeen tubaab suñu état mental la ñuy étudier suñu état mental la ñuy étudier man nag ñoom kaes activiste lañ man bu ma déconné ba pare dafa am fii service bu ma rallier su ma xëyee samay supérieur ñoo may woo wax ak man la police française. Mais je me encore une fois, j'assume, je réitère mes mots. Comme je sais qu'actuellement la police française est en de suivre nos lives. Macron, c'est le petit pénis. Son testicule droite. Macky Sall, testicule gauche, Arsène Ouattara, ça, je signe, je persiste. Je ne reculerai pas devant ces mots. Je sais que vous suivez ça, c'est pour ça que je les fais penser en français. Je suis plus prêt que KSOF. Moi, pour vous dire, je suis prêt à déchirer les documents que m'a donné la France pour rentrer. Vous ne savez même pas ce qui se passe. On Sonko, fi mu toll nii ñi ko yor di jiite di jàppale Ousmane Sonko ak ñii di feeñ ci télé bi da ngay sentir ne ñiy feeñ ñi koy waxal ak ñiy bind si kayit yi bokkul. kon Ousmane Sonko ndax day dem élection ci candidat indépendant wala ñun peuple bi ñooy def bloc. investir ko par force mu dem yéen ku leen andil livre tuddee ko agro non mooy livre bu mu njëkk bind gaz et pétrole andil leen agro business agro business lamb loo xam ne du bokk ci ministère yi loo xam ne à travers lamb ji kese da ngay développé Ousmane Sonko jël quatre mille licenciés sur cent quarante écuries quatre mille licenciés yoo xam ne il ne fout rien xëy dem entraîné ñëwaat yéen comment système bi depuis mille neuf cent soixante Sénégal Mimran kese moo fi bay suukar comment Mimran kese moo fi bay suukar defar dëkk ak dëkk def ko région di doon benn naaru xaraam benn libanais juif yu xaraamata njaay nekk fi depuis indépendance moom moo ñuy jaay suukar lim ko neexe ni mu demee ku ko neex mooy falu lii xeex Ousmane Sonko bari maa xam nga ne ba ñoom Mimran yi il finance pour éliminer Ousmane Sonko Mimran mimra Idrissa a ay candidat am man dama wax ci ay mbalit man damay wax ci borom doole yi gis nga mbalit yi nii yéen wax leen ci réunion leen si man maa ngi wax dóor ci borom doole yi ñoom Tinubu sekkuma koog ñoom du ma ak ñoom encore une fois man li leen gars di préparé fa laay dóor xam ne li ñu leen présenté yëpp c'est pas moo tax duma ci perte sama temps lu dul dëgg du ci perte Mimran mënul jël toute une région Ousmane Sonko ne leen ñun tey bu ñu jëloon tey réew mi agro business làmb la ñuy def agro business làmb c'est-à-dire quatre yi sur quatre mille personnes au moins pour wan leen Ousmane Sonko moo jub xam nga bu ko neexoon ne sur quatre mille personnes ne leen mille emplois direct ak cinq mille emplois direct mais xam nga lu leen Ousmane Sonko wax sur quatre 168 emplois directs maanaam 168 CDI lay am sur 48 sur sur 4000 personnes sur 4000 personnes yooyu ay travail saisonnier day am nii dañuy job saison 45 jours mën dem noppalu mooy ñuy ñëw defar terrain bi ñeneen ñi bu ñuy ñëw ji muy beneen compagnie si beneen écurie lutteurs yi maanaam écurie lutteurs yi dañuy tourner. di liggéey en même temps mais si tournage bi day am 168 yoo xam ne seront fixes ñoom ay CDI lañu ñooñu ils seront formés dans l' agriculture complètement dans l' agriculture loolu ci làmb ji kese la ko Ousmane bi Ousmane Sonko bind na pour de huit livres nekk de si làmb ji nii li mbëri di taxawaalu nii Ousmane Sonko di ci bind pour jox leen job seul si agro business bi Ousmane Sonko génne yéen jeune sénégalais taux de chômage bi fu mu toll nii. man en matière de politique en matière de politique politicien bu leen ne Ousmane Sonko bu toogee d'ici cinq ans dëkk bi dootul am chômeur non kooku maa bañ kooku mënul nekk c'est impossible ak lu Sonko liggéey liggéey liggéey liggéey dëkk am na ñoo xam ne bëgguñu xëy xas nañ tàmm toog muy dox moo tax chaque jour ma ne leen ndax sénégalais pare nañ pour accompagner Ousmane Sonko ils sont prêts ku sant Mbàkke du ci bokk nankatu café Touba jaa Bamba Karaay duñ ci bokk wajifa gu bëri gi duñ ci bokk problème Ousmane Sonko c'est les Sénégalais en grosso modo problème Ousmane Sonko ñun la Ousmane Sonko ñëw na leen dawalkatu saret yi ñu compté ñaata jeunes ñoo nekk ci saret yi ba pare ñu ne leen jeunes yooyu jànguñu mais ñoo mën a fen jeune bi dem ci mécanicien ñu ne la jeune bi jànguñu ñoo mën a fen taalibe yi xëy nekk si mbedd ñu ne leen taalibe yi jànguñu dañuy feesal réew mi ñoo mën a fen lépp lañuy ñuy businessé oustaz yeeg ñëpp ci yem lépp la ñuy businessé taalibe yi jàng alxuraan moo leen fa andi ki jël responsabilité jàngal alxuraan Ousmane Sonko ne moom pukus boobu ñu ko jox moom am na responsabilité doon na dëkkul dakaar bu fi deful dara mais école yi amul ay gardien école yi war nga fa mën defar ci biir chaque bu nekk primaire bu nekk nga defar fa loo xam ne au moins kooku ñëw jàngale si alxuraan te dëkkul dakaar dootul am problème location yow li ñuy def cantine scolaire yi. xale yooyu di jàng ci daara ñoom ñu tëj leen ci biir école yi maanaam ci biir école bi ngay tabax parti boo xam ne metre boobu di xëy di yalwaanaloo oustaz bi xëy di yalwaanaloo xale yi manque de moyen moo tax ñuy yalwaanaloo xale yi encore une fois mosoo dem kër goo xam ne danga nga fay fekk ñuy jàng alxuraan ñu leen di financé ñu leen di yalwaanaloo ku leen ko wax day fen oustaz Alioune Sall li muy dundal ci élève alxuraan kenn dundalu ko man mii Ziguinchor 900 mètres carrés laa joxe soixante booy taalibe laa yor lu ne laa ci daj soixante mais kenn du ci génn yalwaan ndax ci biir àll bi la ñuy jàngee alxuraan kenn mos si génn talal loxo mosul am laaj leen fii conteneur yi may chargé filipari yi may yónnee temps laaj leen fépp laa koy sarox si sénégalais yëpp yi fi chargé dañ ma xam ñoo pay cotiser ñi jox ma daal ñu jox ma yëre ñii ne pour xale yi jàng alxuraan pour lan ma ubbi paragraphe bi tey dama am lu ma metti Sénégal da ngay wax lu la neex dañu commencé def comme tubaab nit day wax ñu war ko rey war ko reddi ndax ñit am na wax yu ngay wax dafa war a xaraam ñu war ko rey rendi naan leen noo dafa dafak daful pourtant de biñ fi taxawee ne jabaru sëriñ diw dëggoon dóoranteeg candidat bu citoyen bi yéen ñëpp fippu bi ñu taxawee ne seen alxuraan bi du dara lu dul ay taaxuraan tey si man tey bu ma xëyee tey bii heure tey man man si man tey bii heure tey Sénégal mu ngi tàkk wante Sénégal nee naa leen naa fiq yee fa ëpp Ousmane Sonko yaa am problème Ousmane Sonko yaa am problème booy t'as de sérieux problème avec ce pays sérieux problème te dëgg neex yàlla man nag ñëpp si yem ñu ñu yaroo Sénégal gu njëkk ga man wax ji lu ma ñëw fi Europe moo tax ma comprendre wax ji de mais tey bu ma nekkoon Sénégal xoola ba waxee ci alxuraan gos droite dama la naan paas mais ba waxee ci sëñ Bamba ma jaay la sama bakkan ñun ñëpp loolu la ñu yaree c'est le c'est le c'est le système bi système la bii du système bi système ak système bokkul système pour ñun la sénégalais ak maire yi nga leen di wax Ousmane Sonko ne yéen seen liste électorale yi foog ngeen contrôler ko ndax bëgg nañ ci génne tuuru Ousmane Sonko mais l' état judiciaire l' état judiciaire waxuma leen justice bi de état judiciaire bi ne leen tuur bi fi génnaat tur du fi duggaat ñu war a jëm ci parenage bi parenage bi ñu jëm nii pour lan mën na leen téye leen seen carte d'identité préparé parrainé Ousmane Sonko Ousmane xam ngeen senegal saa ngeen gis fi candidat yoo xam ne dañuy dem examen lab géej examen bi jeex ñoom ñu jël premier di centre Ousmane Sonko fala la jëm ak yenn kon bi maa ngi waxaat parrainage bu ñu leen laajee dix bu ñu leen laajee dix laa la wax fexe leen ba am sang yu wóor teg ko à côté bu ñu wekkee seen benn ne moo ñiroo léeg fii moo ñiroo léeg fii ngeen génnee waat beneen liste pour changer bu leen sax nekk fii di changer ay tour changer waat leen liste yi pour wan leen ne yéen da ngeen am da ngeen a mën ndax jot naa feneen si weewu nag am na ñu fi am deux millions de signature de mais comme man duma publicitéel kenn am na koo xam ne daal li jënt na deux millions de signature am ba pare te deux millions de signature yi foog naa ne ñu ko gën a signal Mauritanie lañ nekk ak ci frontière xaw ma nag kañ lañu ñu lijjante seen deux millions de signature yi xaw ma fuñ ko lijjantee xaw ma nuñ ko lijjantee lenn rek laay wax moytu leen ñu dugal leen si piège boo xam ne mooy publicité dans la négation une publicité dans la négation moom lañ leen commencé dugal affaire bandi la gars yi def nii xam nga affaire bandi mooy lan Sonko dëgg na lool panafricaniste la pour am ku am poids léegi nañ jël tokkaar jiital ko boo jëlee tokkaar jiital ko vrai yi génn vrai bu ci ñemee am fitu génn dañ lay victimiser pour xool population bi loo mën a récupérer newoon naa leen mois de mars bës bu Macky Sall déclaré candidature am di ngeen gis candidat yu bëri di ngeen gis ay autorités de la république yu dem jàppale Ousmane Sonko di ngeen gis autorités yoo xam tam dañuy exploser parti yi dina bëri lool candidat yi dina bëri lool mais ay candidat amul ay Sandaga fi am ndax ñoom ñëpp dañuy marchander nii seen post ñenn seen bakken la ñuy marchander boo leen yaakaaree na nag waa benn bokk yaakaar dañoo tas ba ñu victimiser seeni partisans organiser seeni meeting fay ñu leen di sànni xeer moom gars yaay bandi jootum <laughs> tey gars yi yéenay bandi booy Bamba Sila merci booy am na benn booy buy live sama booy bu ma tàmm partagé Bamba Sila mu ngi dëkk foofu pakaaw moo leen gën a maîtriser pakaaw ñoom ñëpp da ngay organiser meeting de jaar ci benn booy jox ko cinquante mille ne ko su meeting mi dawee ba tel heure su ma wax ñëw leen sànni xeer yuuxu tuuri diw c'est pour te victimiser. moo xew Sénégal mais personne n'est victime à part Ousmane Sonko maa ngi waxaat de Ousmane Sonko lañ fi dàq liggéeyam Ousmane Sonko lañ fi toj vitre otom génnee ko tojaat fi vitre otom empoisonné ko Ousmane Sonko. lañ fi jëlee Ziguinchor jëlee ko ci yoon bi yóbbu ko ba këram tëj ko ne ko kenn kenn gisu la juge bi solul ay verre kenn gisu la nekkoo fi reste muet juge ko par contumace tëj ko deux ans ne ko kenn gisu ñëw ba jàpp ko tëj ko ne ko kenn gisagu la en grosso modo fa la Sonko toll nii mu ngi ci kaso bi mais état pas état gouvernement nulaar la ce gouvernement indisponible la ñoom moment bi xam nga lan moo leen dal ni gisaguñu Ousmane Sonko ndax contumace bi ñu ngi ciy bëgg a ndax lan Sonko nangut a génn réew mi Sonko nangut a génn kaso bi ci ay balaa bala Sonko fa téye boppam de Sonko moom ak dignitéem ñoo fa téye seen bopp. te coow li toll na foo xam ne foog ñu codé ko damay wax damay wax politiciens yi comprendre ñu fi may waxee combat day am foo xam ne su fa tolloo ñi lay mer merle fépp la ñuy jóge ñëw boo ubbiwul bunt bi bu ñu demee ak seen mer buñ ko joxee keneen nga ñàkk mbooloo mooy doole ñëpp doon wax waa Casamance rebelle lañu Casamance bokkuñu Sénégal tey ngeen toog ba ay doomu Casamance ci xëccoo bokk ci komba bëgg a def unicité ñu bëgg ñoo génneewaat ñun duñu dugg ci seen piège bi ndax ay africain lañ lu waay jàpp lu waay am da koy teg à côté ba ñu jàllale Ousmane Sonko ba pare bu ñu toogee nag ñun bu ñu paree ñëw Sénégal toog jàkkaarloo buñ ñu loué salle ñu dem loué ñu salle ñu noqante fa ba ne sip mais ce n'est pas le moment d'une division ah ouais je suis toujours dans ma ligne de conduite je suis toujours dans un combat mais si l'Afrique demande La Casamance est une ville africaine. Si l'Afrique demande, le Sénégal est une ville africaine. Là, on est une nouvelle dynamique, c'est-à-dire l'Afrique libre, une Afrique d'unicité. Et qui a créé cette logique-là L'État africaine. Vous savez que c'est Ousmane Sonko qui a créé l'État africain. wax day faranku laay da ngeen bëgg a dégg ñuy jiñ Ousmane Sonko su suuf ñi nekk su suuf ñëpp laaj leen Ousmane Sonko moo créé état africain moo créé éveil brutal bii nii xew Mali moo créé éveil éveil brutal bi xew si peuple Afrique peuple africain yëpp Ousmane Sonko moo créé éveil éveil brutal bi depuis 2017 ndax lan discours am France et franc et cash ñi dangay ngay dëggu ñit da ngay dëggu maa nga sàkk pexe Sonko nag mënul créer lii ñun ñu nekk naan dina mat du mat dina baax du baax xam nga lu sonal sénégalais pessimiste. xam nga sénégalais lan moo leen jaaxal si man ni dañuy gi dee boo xam ne guerre boo xam ne lu dee yi di gën bëri may gën a kontaan ndax damay xam ne lu dee yi di gën a bëri ñuy gën a am raison. ku ñu tëj kaso man leen on passe raison d'état ndax ñu ngi ci xeex talaguñu di calculer sentiment ku ñuy tëj kaso fa ngeen gérer ko foofu. le don de soi lañ toll wan bàyyi woon ku nekk génn par kenn ñëw jàkkaarloo xeexal si réew gars yi maa ngi wax rek tollootuñu si na parti diw xeex tollootuñu ci na responsable politique génnee xaalis jiite tollootuñu foofu. toolatuñu foofu ñu ñëpp foog ñu ñëw daje toog jël suñu égo teg à côté jël parti politique yi teg ko à côté jël lan suñuy juróomi baram l'eau le feu l'air la terre la lumier li nga xam ne Afrique moo ko détenir actuellement juróomi baaraam la pas ñaar ñaari baaraam pyramide la ñun duñu ay pyramidien non bokk ñook ñoom buñ ñu nax bu ñu naxati ci ay chiffres Sonko li mu liggéey nii dévouement ak détermination donc muñ ci génnee kaay so félicitation merci beaucoup kaay sof au moins ñun France am nañu Ousmane Sonko junior am na ñu bëri di ma woo naan ma no doomu Casamance yee eh, fii France la nag de fii France la fii amul da ngay tëj nii amul da ngay tëj déedéet fii dëkku règlement la dëkku loi la lenn kañ laay ñaan yéen Ziguinchor yee eh, gis ngeen de Doudou Ka étranger la du doomu Casamance chaque jour ma wax leen ko dinaa dugg ci ay jaayam c'est que moment yi dama ko talagul mais c'est un étranger d'abord ñoom dañuy nekk ay double nationalité ñoom ñëpp yàgg na leen ko wax Macky Sall américain la jabaram ak doomam américain mënuñu leen jugé xanaa nga topp leen pour haute trahison ñoom Doudou Ka ñi ñëpp ils ont leur document ndax daf fi jënd kër. doomu Casamance moo jël doomu Casamance porté ko plainte waa hôtel bi bokk ci porté plainte suba ba midi. bu Kayz of génn Doudou damay assiéger sa kër Ziguinchor d'abord foofu jër je récupère maa lay avertiraat combat bi nee naa dañ ci génnee politique yi ku nekk jël responsabilité bu leen neexee ne rebelle yaay xeex Doudou Ka sa tool ba sa tool bi jàppal ne ci xat yi laay commencé je les élimine d'abord xam nga lu la neex def nga ko Sénégal jël nga say nerf bi man xam naa ne yaa jël nervi yi ci laa defoon live ne la tey un homme pacifique bu la gars yi dugal si lii nga ne non ay ñoom Souleymane ko ñooy jël ñoom muuro tuuru Doudou Ka parce que ku xam Doudou Ka passivité am ak yambaraayam ak nu muy dundee biñ mën a dafa jël nervi dama jaaxal mais yow Doudou yow yaa àndoon ndax nervi yi kon yow yaay fen Sapko jëlul ay nervi de ko ay criminel la jël Guinée Bissau dugal leen. ko ay criminel la dugal Guinée Bissau yow Doudou yaa andi woon nervi yi te munoo nekk doomu Casamance duñ dugal ay nervi yi ñoo bëgg a tëj doomu Casamance one est d' accord sur ça Doudou Ka maa ngi wax de retirer sa plainte naan xam naa lu may wax ndax munoo delloo si cas of Sénégal saa moom si est impossible loolu moom xoola sénégalais sénégalaise na seen xel dal man mii rek ñoom mënutuñ ma delloo si Sénégal xam naa lu may wax mënutuñ ma fa delloo si man tey man sama dellu Mali moo gën a wóor téeméer yoon sama ñibbi si Sénégal moo tax je m'en fous damay saaga seen ndey fu ma nekk mënuñu si man dara. tant que les cinq colonels là sont là ñii Macky Sall mënoo si man dara sa papa buñ ko suli woon mënul si man dara sa yaay buñ ko suli woon mënul si man dara. te boo dee góor ñi ngeen di yóbbu ñuy xeex ñeme leen wane rek ne armée sénégalaise mooy xeex su ngeen di comprendre lan moo xew pour clôturer. dimanche ñëpp dem nañu kër Ousmane Sonko ni day génn effectivement daa waroon génn mais Sonko kenn du ko teg paaka si put ba pare ne ko génnoon maa bañ ñun ñi tuuti ñi ñun ñi tekkiwul dara ba dara booloo jeex si réew mi kenn du ñu teg paaka ci put ñu bëgg ko teg suñu kilifa mu koy nangu déedéet kenn du ko wax ne génnal noppi faju ji bàyyi Bassirou Diomaye Faye nekk candidat ñoo bañ Bassirou Diomaye Faye ak a yomb dóor bu ko am ah bu ko Tinubu dóoree day d'accord bu ko keneen dóoree day d'accord même bu dee ay dóor ndax ñun gis nañ lépp si campagne yi Ndar Saint-Louis gars yi dañ jaay affaire bi de Mbour <laughs> gars yi dañu wanteer candidat bi de Louga gars yi dañ dóor affaire bi de gars yi région yi Pastef gagné bëri na de Ousmane Sonko région yi mu gagné woon bëri na mais gars yi dañ ko dóor te loolu c'est de bon guerre parce que boo nekk ak ay ngaa ko ci politique di leen jox ñuy campagne al Sonko Ousmane Sonko ñëw jàppaleen ay hommes yu sincère mais c'est trop tard Ousmane fi nga tëdd hôpital sa sens de responsabilité yeggal na la foo xam ne jeunesse bi dong ñoo la ci moom génnee un yi kaso bi foog mu amaat ay nit parce que foog ngeen jël seen responsabilité dugg ci kër yi defal Ousmane Sonko parenage parrainage yu lëndëm la ñuy bañ xaar ba guddi di duggante ci biir kër yi ñu leen di jàpp di leen humilier déedéet. policiers yeeg gendarme yi maa ngi wax rek saa dootuma wax kenn bu leen nañ leen nokk nokk leen booy policier gendarme comme yéen da ngeen di dugg kër jàmbur yi di def lu leen neex ñoom sañaguñu dugg seen kër yi taal seen doom yi xañ seen doom yi seen biir koñ. dañuy bind ay commentaire naan noo dafa commencé yomb yombul de yéen a def yëfu ragal mu yomb si ñoom lool ñu ah c'est ça cagala de affaire cagala affaire bi nappante la da ngeen nangu nekk ay caga ki client bi sax bu xëyee da lay dóor te du la fay si automatique defoo waxoo yaa ngi toog sa biir kër ñi boole la police ñëw fëgg sa kër jël la waa kon gi ñëpp yëpp ne këm te kër giñ ko jëlee mu taqaloo kër policier ngeen mun ñu jël ko ngeen taal nday kër policier boobu d'urgence njabootu policiers yëpp dañu xat ci ay camp njabootu gendarme yëpp dañu xat ci ay camp booy eh patriote man je serai droit au bi xam nga gars yaa ngi naan kër politiciens yi man waxuma kër yi xoola jàppale leen ma sama moto si mat sama cocktail molotov yeeg yooyu comme yéen jëlu leen seen responsabilité ci policiers yeeg gendarme yi man léegi man man personnellement man je vais moor bu ci am suñ ma dëpp seen kër yi seen doom wala seen jabar bu lakk bu ñu ma déposé plainte j'assume ci kanamu yàlla j'assume man lu may def ci kanamu yàlla sax j'assume gars yi jàppale leen ñu ci combat bi ñu noqanteeg ñi génnanteeg policier ak gendarme yi bàyyi lu ñu jàpp suñu doom yi ngir yàlla affaire bi c'est trop facil dañ lay jàpp tam ma sa tànk tëj la ci kaso bi c'est trop facile booy taal leen kër policier yi nekk si koñ gi kër gendarme yi nekk si koñ gi boo leen buggee am jàmm tant que procédé leen noonu Macky Sall buy libéré day jàppaat di dugal buy libéré day jàppaat di dugal xam nga maay moom lan la xol bi nangootul dégg kan moo am soutenu Ousmane Sonko ci biir dëkk bi maa ngi wax rek di ngeen yegg foo xam ne nag allez sans retour lay doon su boobaa chacun va prendre ses responsabilités. jàpp leen si combat bi maman yi man taluma ay affaire yu calcul ak yii jeudi vendredi laa leen waxoon gannaaw suba la jeudi sama campagne de sabotage gëm ma leen ni astafurla astafurla as oh saaga bi. 06 05 59 96 00 ñii boo kiiwul te xoromoo leen gis nga boo leen xoromul rek daam looy seet bu ma leen xoromul rek daam lu ma lay seet mais comme yaa ngi ñëw France naa xam ban dan koy yëg léegi yëpp gars yi concentré wu leen restez concentré le maximum bu ma kenn waxati focus ah restez concentré wu sur qui Sonko un Ousmane Sonko premier candidat deux Ousmane Sonko 3 Ousmane Sonko 4 Ousmane Sonko 5 Ousmane Sonko 6 Ousmane Sonko 7 Ousmane Sonko 8 Ousmane Sonko 9 Ousmane Sonko c'est l'infini deux jours a ngi ma leen di jox chiffre bi may dem ba 9 te leen Ousmane Sonko c'est l'infini pour lan yàlla dugal ko 9 nag c'est l'infini yàlla tegatu ko ci affaire politique ci population la ko teg kon kupare joor jóor nañu mayo yi ku pare jor nañu maye ku pare pour combattre carrément pour que Ousmane Sonko soit candidat pour que Ousmane Sonko soit investi nii nii nii nii nii gars yi ñu ngi koy pare du ma leen nëbb am nañu ay punkal si réew mi yoo xam ne ñu ngi pare jóg takk seen fit jël tuuru Ousmane Sonko investir ko dem wutal ko parrainage xam lu si Macky Sall mën si l'État est derrière vous il faut accompagner ceux qui protègent les institutions ceux qui veulent rendre le Sénégal une république de dignitaires une république boo xam ne ñun dañuy delloosi waat institutions yi quand les institutions parlent on les respecte quand on regarde un ministre on le respecte quand on regarde un directeur on le respecte loolu la ñu bëgg delloo si nii rien d'autre que ça ñun ñoo ko mën a liggéey à travers lan bloc waxuma leen bloc baa de bloc ho oh, la ñuy demee bi pas bloc baa bi on a déjà gagné le bloc baa moom c'est on a déstabilisé carrément le gouvernement de Macky Sall bloc bas bi on l'a gagné léegi nag bloc haut bi mooy lan ise Ousmane Sonko code bi foofu la nekk code bi ci Ousmane Sonko la te pour ñu teg ko ci code bi foog ñu xeex moom xeex laa gëm mooy lii ndax foog ñu xeex Ousmane Sonko yokk ko confiance au moins yóbbu élection bi quatre vingt deux pour cent wala quatre vingt trois pour cent avant midi ñu gagné ko deux mille vingt quatre mu leer ñu ne Ousmane Sonko loolu lañ ko éliré. su boobaa référendum Sabadola moomuñu ko dóor naa leen code bi déggu leen code ba ñu rey nit ni grand loo buggoon wax ma ne leen am na ay terroristes ça veut dire que ñooñu ñu fa rey ay terroristes lañ ndax dëkkuñu fa Tahirou Sarr lii lay kaas Sabadola étranger yaa fa dëkk étranger yaa fa ëpp ay burkinabé ba ay mi Mozambique ay Zimbabwe ñoom ñëpp a ngi fa wut wutkatu or yëpp ñu ngi fa Sabodala ci kayit bu ñu fa dooree bal ni ministre de l' intérieur day joué film day joué film de day duul xoolal ñooñu ñu fa rey noonu xool gars yi on oh, passe c' est normal c' est des raisons d' état dëkkuñu fa di dóor bal c' est logique c' est logique. lañ lay jiñ parce que ñoom bu ñu julee ba pare dañu nekk toog fa di wax seen i waxtaan ak yooyu déedéet c' est logique Alioune Badara Cissé waxoon na leen ko. mënoon ñu fay liggéey dans le clandestin di wut or clandestin amuñu carte de séjour Sénégal. yéen sénégalais yi fay liggéey déclaré ñu leen fenn nekk ci mbedd bi di gas ay or créé fa seen benn village boo xam ne ce n'est ni l'État ni personne may wax ngeen ne da ngeen di déposer préfecture pour marche non man foofu booy je ne ressens pas de sentiment déedéet dañ leen dóor ay bal parce que yéen a doon manifester mais on vous considère comme des terroristes temps yi la passé waxoon naa ko ngeen bañ village yu Sabadola dem leen dégluwaat 2021 bi dëkk bi tàkkee Alioune Badara Cissé bi muy def discours am ñoom là-bas sont considérés comme des terroristes Alioune Badara Cissé boobu la leen ko waxoon capitaine Dieye ñëw wax leen ko mais xamu leen village Sabadola képp ku fa dëkk boo xam ne du usine bi ci loi terroriste bi nga bokk boo fa manifester dañ lay dóor bal nga dee moo nekk suñuy texte man tey bu mu fa nekkoon tey en tant que homme de tenue ñu manifester fa dem leen di dóor bal parce que loolu la loi bi wax loolu la bi wax point dëkkuñu fa foog ñu légaliser village bi mun leen ñëw village orpaillage c'est clandestin régulariser ñu ko Ousmane Sonko nag je vous dis quelque chose de clair de balaa ngeen foog affaire yu banal yi da ko fay bàyyi ku mu neex ñëw wut or ku mu neex ñëw lii ko déedéet ça ne se passera pas comme ça on va tout régler tout tout organiser village bi lotisser ko ku fay toog toog fa ku fa dul toog ti ta kaas ku dëkkul Sénégal ti ta kaas soyons logiques Sabodala ça appartient au sénégale c'est pour les Sénégalais suñuy doom ñoo fay dem liggéey on change les conditions de travail mu ngi ci livre gaz et pétrole bu Ousmane ko bu ñuy waajal keroog ñoom bi ñu déposé pour def marché bi laa leen ne Sabodala capitaine Dieye waxoon na bi ñu déposé pour def marché bi laa def live avertir leen ndax xamoon naa ne dinañ leen dóor ay bal bu ñu marché looloo fay règlement te mooy yoon dëgg moo ma sonal saa ñu bëri dañ ma naan grand lii leen booy bu leen tax ma wax ndax des fois sama noppi mooy gën sama wax ndax dëgg moo ma sonal mën ngeen dem compassion bëgg ko muuroo yuuxu loo leen yuuxu yuuxu droit de l'homme ak ñëpp si yam boo demee ci taxi da ngay fekk ne lii mooy logique dañ leen di dóor bal parce que amuñu droit manifester c'est des étrangers point final yéen ñëpp ci yam point final village ba yàlla bordel on assume ce bordel nous tous parce que ñoo ko fa bàyyi kon Ousmane fi nga nekk foofu la de bul signé bu kenn xoj pour nga génn tant que yow libéré woo sa bopp génn bula kenn xoj loo fa gën a yàgg on s'en fout on ne va plus rendre compte au mu ngi tane tanewul mu ngi rendre compte kenn Ousmane il e dans un combat et il va l'assumer basumo basumo mbare suba à partir de douze heures nag bu kaay sof génn gars yi rendez-vous ñëpp ku wàcc ak buntu commissariat demee même buñ ko naree def garde à vue quatre-vingt-seize heures nañu 17 heures bu ñu fa naree fekk tam ba 17 nag bu fa fekkee kaay sof ku ñëw na nga àndaale bougie kuy ñëw na nga àndaale bougie suba jusqu'à 17 heures si kaay sof est gardé au commissariat celui qui vient vient avec une bougie bu ñu manifester bëccëg bépp si la nuit tombe on va organiser une veille nocturne je vous lance un appel solennel yéen ñëpp yéen patriotes de la diaspora yi demee si caisse of ne sort pas à midi ñi nga xam ne joobi ñu nañ fa commencé ñëw 17h bu génnul képp kuy ñëw na nga àndaale yi képp kuy ñëw na àndaale àndaale bougie buñ fa toogee ba 20h buntu police bépp dinañ ko def ay bougie taal ko c'est la meilleure façon de manifester ndekete moo gën yuuxanteex ñoom sànnantee xeer dañuy dóor lacrymogène dàkku ñu mais suba ngir yàlla rek kuy ñëw àndaale leen seen bougie on va tout faire pour libérer Kayz Fof de force ou de gré ñun duñ ci neexalaate ay naan gos gauche droite comme yéen Sénégal li ngeen def nañu moslaa ñun fii on connaît pas ça on fait le boulot comme il le faut. Basuma Basuma Mbare force à toi mon frère Kaysof force à vous les prisonniers politiques qui sont au Sénégal condoléances et gloire à nos morts Basuma Mbare.